ci yow yow Soumboulou Bathily xaw ma ndax nit ñaa ngi koy remarqué ci ñoom dama bëgg ngeen déglu ma de ubbi seen nopp yi déglu ma ma wax leen waaw Soumboulou li dafa am loo xam ne man dama ko remarqué ci moom te loolu mooy li ko téye mooy li ko aar dama bëgg ngeen xool ku bëgg gis li may wax duggal ci vidéo Soumboulou Bathily nga di ko seetaan benn par benn Soumboulou dafa am li nga xam ne bu ko nit amee muy ñeent yii jarul ngay tiit jarul ngay ragal jarul wut sëriñ jarul ngay wut ñaam jarul ngay muslu ci ay noon jarul ngay muslu ci pexe noon ak pexe seytaane sumbu dafa am imaan muy benn am tawxiit am yaqiin am ixsaan ci digganteem ak boroomam sumbulu loo ko wax dala naan yàlla yàlla yàlla baax na yàlla na yàlla yàlla du la ne sëriñ diw daa baax na du la ne sëriñ nàngam du la ne diw nàngam yàlla yàlla rek yàlla rek noonu si noonu sumbulu bàcc yi li yee ko naan seeni xol yi di tàkk njaay ñëw nag doggati leen nday li bañu di ah <laughs> eh, yaako yaako mbaaco njaay nag dafa ñëw rayati noon yi rayati sénégalais yi nappaaje leen dox ci seen xaw naan njappac këba cë cë la la teer tëpëx tëpëx tëpëx ngëcc ngëcc ngëcc gasuul Mbacco Ndiaye def moom moom jaru sax may débat ci moom lu bari ndax lépp lu naqari woon ay mbokkam naqari ko ak lépp loo xam ne ay noonam dañ ko ko doon pexeel mbaa ñu def ko ko ci lu ñaaw tey jii xoolal siggi na ci seen biir kaw yàlla sagal na ko yàlla moo mën a xeexal nit fekkee alxuraanu karim gis nga yàlla buur bu tedd bi nga xam ne mooy def lu ko neex te kenn sañu ko ne pourquoi te ku ko ne pourquoi yàlla boo ko ne pourquoi nga defal lii diw ak ñàkk yërmande loolu moo tax nit ku ñuul du dem rawatina sénégalais waaw ndax kat yéen jàngkatu alxuraan yi lay wax ak yéen ustaas yi firi alxuraan yéen yéen a li yàlla wax ci alxuraan ku sa xol laabul sa xol setul amoo yërmande nga soxor bon iñaan iñati iñañañi xaali xañi doo gis nit mu kontaan doo gis nit lu am mu am lu baax bëggoo nit ku avancé bëggoo nit ku xàppi bëggoo nit ku am jàmm e yàlla day tëj say buntu wërsëg rapat rapat rapat ba pare nag siri ne ko wërale ko ay fiilu courant ba ku ci jege mu maas la doo ci jëriñoo dara loolu moo dal Sénégal te gis ngeen euh, ma jox leen benn conseil réew Samba Dieye la xam nga bala maa débat ci yéen lu may wax xool tàngoon na ca yeetaa yeetaa xool tàngoon na ca yiitaa yiitaa xool seddaat na guy sumbulu mbaaco njaay xool seddaat na guy macha allah laaw la cat laaw la bët laaw la ma làmmin laaw la ma xel laaw la ma njuuj laaw la ma njaaj laaw la ma njaraj laaw la ma cëll laaw la ma tëlëm laaw la ma tillim laaw la ma mëñën ci laaw la bët bu aay bu dul gis lu baax te du xool lu baax laaw la ma gémmiñ gu mbuuraan gu dul wax lu baax di wax lu ñaaw di wax lu iñaan di wax lu soxor tey lekk mburu faga dagaak dugub bu forox laaw la ma xel mu aay muy xalaat lu bon ci sama rakk yu baax yi sumb baax bi eh dama am na question te ku ma ci répondre dinaa la may 1000 dollars 500000. e du ma waxantu incha allah tere nañu seeni noon nelaw ci jamono yi sumbulu bàcc li chéri Ablaye Diop xaas Mbaaco Njaay chéri Baye Ñas eyako sama rakk yi la ñu takk may leen ay million may leen ay jamaa tabaar fakal la macha allah may leen ay wurus wa kay waaye balaa boobu nag may ñëw ci sama rakk yooyu dama jëm ci milliardaire bi eyyo lay la illallah et pc tous voko frappez les balles lion rouge a rougi le dôme se dôme moo géet moo géet ey na ñëpp takk seeni bagages na ñëpp bug seeni hôtel